jigéen toll ci 25 ans ñi nga xam ne nag ñoom ñooy secours yi ba ñu ñëwee jël nañ kooru ki nga xam ne moom moo ñàkk bakkanam ak ñetti ñi nga xam ne ñoo blessé yóbbu lañ ci hôpital bi nga xam ne moom mooy hôpital Ibrahima Niass bi nga xam ni moom moo nekk région bu Kaolack ñii di waa ONG Jamra nag mer nañ ba futu seen mer boobu ñi ngi ko jëmale ci gouvernement bu Sénégal ñoom nag li ñuy tuumal gouvernement bi mooy nee nañ ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi ñoom ñooy daal di dooleel nga xam ne ñoom ñooy borom ñaari tur yi selon waa ONG Jamra nag ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bu Sénégal dañoo daal di délivrer ay récépissé ñi benn association boo xam ni dafa nekk ci wàllum borom ñaari tur yi loolu nag nekk lu waar loo xam ne waa ONG Jamra ñoom ñoo ko daal di wax loolu nag poussé leen ba ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bu Sénégal ñoom ñoo daal daal dooleel nekk ci ginnaaw ci ñi nga xam ni ñoom ñoo borom ñaari tur yi. ñu daal di jeexal ak ki nga xam ne moom moo fi nekkoon njiitu réew bu Tchad ki nga xam ne moo nekkoon njiitu réew bu Tchad di Hissène Habré nag ñu ñuy xamal ni dafa daal tawat ginnaaw bi ñu ko jugé fi nga xam ne moom mooy Sénégal daal moom mooy prison bu Cap Manuel ñu ni ne moom mooy Hissène Habré dafa daal tawat tawat bu metti tawat boobu sax naam nekkoon na ci moom ci biñ koy jugé parce que gis nañ pendant jugement wam li nga xam ni noonu la noonu la yaramam sutantee woon waaye nag ci information yu ñu mujjee xamal moom mooy Hissène Habré dañ ko gis ci ne nekk nañ fii ci Dakar loolu di wane ni li nga xam ne moom mooy feebaram bi mi ngi ci bataille ñuy fàttali nag ki nga xam ne moom mooy Sénégal pour crime de guerre ak crime contre l'humanité nga xam ne moom mooy Sénégal ci giiru dundam voilà mbokk internet yi loolu leen indiloon tey ci seen revue de presse nekkoon li nga xam ne moom moo gën fës ci information yi fi jot a xew ñu leen di fàttali comme toujours ngeen continuer di abonné ci chaîne youtube limametti point com Limametti ngeen mën a yi foo leen mënti toll di leen di jox nag dig daje beneen yoon ci biir limametti point com ak yeneen information